xam ne dañu ñëw pour jàppale jigéen ñi nga xam ne addina bi yëpp ñooy feete tey bés bu am solo boo xam ne dañ ciy jël en charge pour rey feebar bi nga xam ne jigéen ñi la dal spécialement mooy fistule obstétricale xam naa jigéenu Sénégal ñu bari xam ñu feebar boobu parce que feebar la boo xam ne non seulement dañ koy nëbb parce que feebar boo xam ne dañ lay exclure si société ba fa nekk sa jëkkër si boppam sax yenn saa yi daf lay exclure ci néeg bi ngeen bokk kon loolu métti la si jigéenu Sénégal yi métti jigéenu àdduna bi yëpp particulièrement Sénégal la ñi nga xam ne ne ci pour dëkk yi nga xam ne vraiment yàlla dafa def amuñu ay moyens pour jël en charge certaines pathologies li ma wax léegi rek nee naa Sénégal bu ñu xoolee jigéen ñi boo xoolee jamono ji ñu nekk bëkk dem ñu assisté li fi xew nga xam ne ñu ngi koy rafet ñu ngi koy ñaawlu bu baax a baax di vraiment euh, séddoo ak ñi nga xam ñooy parents yi seen naqar waxoon naa ko parce que xamna naa rek na problème bu intérêt Sénégal parce que jigen ni quand même war nañu protéger ba violence di len di faral di len fàggagal loolu du jaaduwul kon ni ci apporter vraiment sunu sun indignation bu baax wane ne vraiment di len def lepp lu ñu mën dañu vraiment defaat ñaaxat encore service yi pour que en fait politique de sensibilisation et de communication pour que violence dootu amati bi ñu waxee violence bëgg dem ñu nekk tey fété nak bëss bi nga xamné bés boo xam ne dafa spécifique pour jigéen ñi parce que maladie boobu maladie bu sonal jigéen ñi la yàlla def nañu dem dimbale ñu nag ba ñu am ay partenaires yoo xam ne ñu jàppale ci liggéey bi la CEDEAO UNFPA le ministère de la santé en collaboration ñëpp ñu ngi àndandoo am projet boo xam ne bu jàppale jigéen yoo xam ne feebar boobu daf leen daf leen gàllankoor def nañ ci ay jéego nag